mbote ma dindi na juróom ñaareelu tayu ga asamaan si ne selaw lu mat genn wàllu waxtu noonu ma gis juróom ñaari malaaka yi taxaw ca kanamu yàlla ñu daldi leen jox juróom ñaari liit ba loolu amee meneen malaaka ñëw taxaw ca wetu taabal dañuy lakke cuuraay yor àndu cuuraayu wurus ñu jox ko cuuraay lu bari ngir mu boole ko ak ñaani gaay yàlla yépp joxe ko ci kaw taabalu wurus dañuy lakke cuuraay te nekk ca kanamu ngànguune mi noonu saxarus cuuraay li gilee ca loxo malaaka ma ànd ak ñaani gaay yàlla ya jëm ca kanamu yàlla malaaka ma jël àndu cuuraay ba duy ko ak ay xal ca taabal dañuy lakke cuuraay daldi koy sànni ci àddina noonu mu am ay dënnu ay riir ay melax ak yëngu yëngub suuf ba mu ko defee juróom ñaari malaaka ya yoroon juróom ñaari liit ya daldi defaru di waaja liit malaaka mu jëkk ma wol ci liitam noonu ñu sànni ci àddina yuur ak safara yu ñu boole ak deret ba tax benn ci ñetti xaaju suuf si lakk benn ci ñetti xaaju garab yi lakk te ñax mu naat mépp lakk ñaareelu malaaka ma wol ci liitam noonu ñu sànni lu mel ni tund safara wu réy mu daanu ci géej gi benn ci ñetti xaaju géej gi soppeeku deret benn ci ñetti xaaju mbindeef yi nekk ci géej gi dee te benn ci ñetti xaaju gaal yi yàqu ñetteelu malaaka ma ci liitam noonu biddiw bu réy yañ ni jum xawee asamaan daanu ci benn ci ñetti xaaju dex yi ak ci bëti ndox yi biddiw boobu mi ngi tuddoon wextan nit ñu bari naan ci ndox mi daldi dee ndaxte ndox mi dafa daldi wex ñeenteelu malaaka ci liitam noonu dóorees benn ci ñetti xaaju jant bi ak benn ci ñetti xaaju weer wi ak benn ci ñetti xaaju biddiw yi ba tax benn ci xaaju leer gi lëndëm bëccëg bi ñàkk leer diiru benn ci ñetti xaajam guddi gi ñàkk leer diiru benn ci ñetti xaajam ma xool noonu dégg jaxaay juy naaw ci digg asamaan si naan ak baat bu xumb musiba musiba musibaa ngi ci kaw waa àddina ndax yi yeneen ñetti malaaka yi di wol